lii di solidarité ak soutien bu sincère jëmale ko dal ci population bi nga xamanteni dañu toussé wu par ay inondation fofu ci Bakel muy ben montée bo xamanteni ndox yi dal ñoko causer muy ay dégâts yu important dal di continuer dal di menacer ay localités yu bare lépp lu ñu mëna assurer dal manam ñu sukkundiku dal ñak ci seen côté ginnaaw lo dal mi ngi saluer di encourager li nga xamanteni moy résilience bi nga xamanteni ni dañuy jàkkaarloog li nga xamanteni moy épreuve yo xamanteni force admiration lay donne, muy message bi nga xamanteni de soutien et de solidarité Amadou Ba jagleel ko ñi nga xamante moy population bu département Babakel bi nga xamanteni jamono ji inondation bi mi ngi len sonal gi dex gi et di en tout cas dal mi ngi manifester li nga solidarité képp qu'on da nga touché wu ko dal ci li nga inondation di tête de liste coalition ak ci li nouvelle responsabilité